invitation 3 nal naa neex de ah nal naa neex vraiment gars yi ngeen leen di kontaan si yéen si ñi nga xam ne yéen a suivre série infidèle xam naa nag yàkkamti ngeen série bi yàkkamti ngeen ko bu baax a baax waaye nag bientôt dina disponible ngeen mën koo suivre nag waa mois de février quoi waaye nag te annonce bi moom li ñu siy def mooy dañuy ñëw wax leen saison 2 bi nan la nar a mel partie yi nga xam ne ñoo si ëpp solo benn bi biñ koy commencé mooy ki nga xam ne mooy Djibril ak. li nga xam ne mooy ñu daal xam ngeen nag ñoom ñaar seen diggante nekk na diggante bu yàgg seen diggante seen xoolee daanaka série bi ba mu commencé mën naa wax ne saison ba saison 2 bi di ñëw waa waaw ñun ñëpp nag dañoo foogoon ni Djibril ah, moom dina dema dem ba bàyyi ki nga xam ne mooy ñu daal parce que son xoolee ki nga xam ne mooy Djibril papam moom moo takk ñu ah, daal mais Djibril dafa tourné di nekkaat ak. jabaru papaam mais ba muy nekk ak moom xamutoon ni ah, ki nga xam ne moo takk ñu laan am mooy papaam mais nag mu dem a dem a dem ba si fin saison 2 bi waa bu daal di koy soog a xam nag mais ñëpp dañoo foogoon nag bu boobaa jibi dina ko seew sax waaye nag série bi son son ko chiffre bi baax di ngeen dem a dem a dem ba gis ne ñoom ñaar dinañ mujjee nekk ñoom ñaar dinañ en mariage seen diggante daal di nekk ñu commencé seyaat bu boobaa nag jibi man xamoon nan dafa demee quoi waaw waaw yow xam nga ni kii mooy sa papa xaw ma mm, moom xam na ni kii mooy papaam mais est ce que dina ko gëm waaw est ce que dina gëm loo koy wax ji man nag damaa foog ni gëmu ko moo tax mu euh, tourné daal di takk ki nga xam ne mooy ah ñigaan mais ñigaan tamit moom bañu ko mais ñigaan tamit dafa desee comprendre ba tey ndax Djiby kii mooy papaam mooy ki doonoo jëkkëram kon bu boobaa mën na ñoo wax ni papa am jabar mais doom bi tamit daal di ñëw takkaat jabaru papaam affaire daal loolu la mën a demee quoi waaw si saison dégg ah saison dégg waaw mu ñëw waaye nag gis ngeen Kapo de Kapo Kapo dafa sonn si maam jaar Kapo moom su sañoon ah maam Diarra ak ki nga xam ne mooy caanaal ñoom ñaar daaw bàyyi ñu sëy quoi waaw Kapo moom sonn na mais man Kapo ah dafa faj quoi non Kapo moom gars bokk na si ñi neexal série invité waaw kàpp moom bokk na si ñi neexal seen infidèle kàpp moom acteur dëgg teg si dafa saf xorom waa suy gisee da xam ne kii affaire bi muy def daf ko daf ko maîtriser muy def daf ko mën muy def daf si fili quoi waa daf ko mën acteur noonu la mën ngaa jouer mais nag soo gisee nit ñi ah nañ siy kontaan te moom la. soo doonee jeune di ko seetaan sax da koy fan quoi waaw moom soo doonee jeune moom ngay gën fan. parce que moom day xëcc fii ay kaana ay bandi xam ngeen ay kaana du bàyyi <laughs> moom kàpp moom gars dafa neex dafa neex vraiment nee nag moom parce que sonn na que man gëm naa ñoom ñaar seen diggante ah dina nekk de waaw maam Diarra ak Thiana parce que nag son xol kooku boobu nice na couple boobu moom su nekkee moom foog naa dina baax si ñoom ñaar ñëpp mais nag euh, Ousmane moom moo si xaw a déconné parce que Ousmane xaw dafa fiir si jaara xaw na mu fa demee mais nan moo nekkoon yoon euh, bàyyi ko mu bàyyi ko comme que kay gis na moom ki mu bëgg waaw kon mu ko parce que moom Ousmane lan moo taxoon mu téye fa maam Diallo mooy ñàkk a gis ku mu bëgg mais maam Diallo neen ko man bëgg naa caana su ma ko may ma sëy mais pour man daf ko war na bàyyi mu dem sëy yi nag dam Ousmane xam na ni Caanaa moom nit ku baax la Caanaa ak Baye Fall waa mel nag Ousmane moom <laughs> waaw xam na ni Caanaa nit ku baax la mais xaw ma moo tax nangu koo bàyyee ak Mame Diarra te pour man soon bàyyee woon moom ah, ñoom ñaar dinañu sëy sëy bu nice quoi waaw waaye nag ba tey ah, yéen a gis ki nga xam ne mooy ah, Bouba Bouba Bouba waaw Bouba dañ kaa tege woon bal mais moom ñëpp foogoon ni day gaañu mais non non instant bi waaw nekk si feebar bu métti nag feebar bu métti mais nag moom ah dina jugaat parce que nag moom ah bu dee dafa décédé bu dee daa décédé si biir série bi non kon série bi dootu amati sens waaw soo xoolee moom man mën naa wax ne série bi moom moo ko téye mooy acteur bi gën a mag si biir série bi waaw série bi moom moom moom su décédé moom en série bi pour man dootu amati sens waaw te fii sax mënu fee décédé non waaw faa mu continuer waaw dina dem hôpital nag après su génnee hôpital xam nga ni dina continuer ak ay mission am de moom dafa baax de moom yëfi invité moo ko neex moom ñëw fii cokkaas femme yi fii doogoo ko neex waaw moom moom bu mu mën a am taamu ak yooyu moom xam ngeen amul dal quoi. waa moom nag it xam naa moom su jógee hôpital bi dina gën mm, nekkaat si kaw Mbaye parce que Mbaye xam ngeen ne moo ko tegoon bal Mbaye moom moo defoon ay pexe ba mu dugg bu génnee si hôpital ba ba nekkaat en forme non Mbaye moom dina amaat gel quoi dina amaat gel waaw ñoom ñaar nag seen diggante en si début bi neexoon na neexoon na nag nekk diggante bu neex waaye nag ñooy dema dema dema dem ba si biir seen diggante daal di commencé am ay jafe-jafe waaw nit ki moom soo nekkul si dëgg moom sacrement ngay sekk ak ak ay jabar jàmbur ñëw ak nii di dund ay infidèle da ngay sonn quoi mais nag euh, bu baax moo ko hmm, baaxul si moom mooy mu dem takk kenn su takkee benn femme nga xam ni ñoom ñaar dañuy dund ak yoon nag mu daal koy bàyyi mais nag moom son xoolee yooyu moo ko neex dund ay infidèle fii ah hmm, tey mu nekk si jigéen bi su subaa mu nekkaat si beneen jigéen te ñun mën nañoo wax ne sax affaire moom mooy métier am waaw jigéen bi su ko soxlaa mu ñëw defal ko koy def léegi nag su soxlaa xaalis nag ne ko jox ma xaalis dama am ay jàpp fii nii waaw bu baax moom affaire yooyu moom may jéem a xaj mais nag mi ngi hôpital ndax dina décédé non pour man moom du décédé parce que su décédé moom sëy bi dootul amati sens waaw dootul amati sens fa mu génn daal di ñëw continuer mission bi waaye nag série bi moom ndax saison 3 bi dina wuute ak saison 2 bi waaw dal naa am changement yu bëri dana am changement yu bëri sax parce que soo xoolee am na ab benn acteur boo xam ni mi ngi woon en Marodi TV léegi nag mi ngi Even Prod man moom gis naa ko gis sax en Marodi TV xaw ma hmm, contrat dafa jeex xaw ma instant bi daal mi ngi Even waa waaw Even moom waaye ñoom ñoom moom ñi ngi doxal quoi ñoom moom vraiment dañu aay waaw soo xoolee sooy seetaan seen i série danga xam ne ñii ñii ñii ñii ñii dañuy job bu baax ñii waa waa ñii faw ñu dañoo aay dañoo aay ñoom moom qualité vidéo day jox ñoom si seen vidéo yi day tegu si temps seen série yi tamit non ñoom ñoom moom war mën a wax ak moom dañoo aay dañoo aay si affaire de série ak euh, affaire de montage yooyu yëpp dañ si aay foofu moom jàmbaar dëgg dëgg mooy ñoom quoi Evan Prod waaw kay waaw saison 3 moom du am changement yu bëri parce que euh, ñi nga xam ni non dina am ay changement yu bëri parce que ay acteurs yu bees ak ay actrices yu bees tàkk takk tàkk teg si am na ay personnes yoo xam ne bëri ñi nga xam ne dañoo ñëw yokk si biir série bi ñooñu ñëpp fas yéene doxal seen mission ñoom tamit waaw ñoom ñëpp fas yéene doxal seen mission kii côté bii nii mais nag li ñu si mën a jàpp ñoom ñëpp seen mission benn affaire la muy infidélité infidélité waaw cinquante femmes yi nag soo xoolee ñoom ñoo si ëpp jigéen ñi ñoom ñoo si ëpp ñoom daal seen mission yëpp infidélité waa dem restaurant daal dafay gis benn góor góor boobu <laughs> ah daal daal di neex ñu dem def seen i manière ba góor boobu topp ren mbaa jigéen ñëw foofu benn góor topp ko waa mën nañoo wax ni góor yi ñoom dañuy dund infidèle jigéen ñi tamit dañuy dund infidèle daanaka série bi daal mën nañoo wax ni ñi si dundul infidèle daanaka tuuti moom lay doon série bi dafa wuyoo turam quoi parce que infidèle la tudd parce que nit ñi tamit dañuy dundu infidèle waaw infidèle tamit nekk benn affaire boo xam ne dafa bëri Sénégal bëri na Sénégal waaw bu baax waaye parce que fii da ngay gis koo xam ni day bëgg a am mm, ab benn jàpp fii bëgg a amaat feneen mbaa am benn fag fii bëgg amaat yeneen fag te pour man noonu du yoon parce que nit ki moom dangaa war a si kenn noonu sax soo ko defee foofu ngay ëppee jàmm mais bu dee dangaa bëgg a jàpp fii jàpp fee xam xam fii xam fee non boo waa dangay sonn boo waa dangay sonn te nag ah, si coono moom ngay dëkk quoi parce que yow soo koy def da nga koy nëbbu waaw su amee fii fal da ngay nëbbu mm, mm, da nga koy nëbbu ne am naa faneen fal doo ko ko wax léegi nag kooku nag su xamee ni yow am nga faneen fal tamit keneen ki xamaa ko woowaa da ngay sonn rek si infidèle chaque fois que mbayang nag affaire yooyu moom moom moo ko dàq quoi mbayang mbayang moom sonn na buub waaw mbayang moom waa moom moom day ngeer ak buuba cent pour cent teg na soog buuba buuba moom su yëgoon affaire yi yëpp yëpp àndu si dugg parce que buuba ba mu si dugg moom affaire da ay bànneex moo ko si yóbbu woon mais nag dem naa ba si biir biir changement daal di am méttit daal di commencé tu ko dugg parce que méttit weesuwul euh, yow ñu naax la ba yóbbu kaso kaso moom ku fa yóbbu moom kaso moom ko fa yóbbu ah mën naa wax ni ko moom sax noonu la quoi waaw kooku moom sax noon la Tamba moom instant bi noonu ki nga xam ne mooy buuba waaw te buuba tamit dina def ay pexe ah, ba wan kon yow ah, affaire yi ngay def Ah, yow da nga soog a commencé mais ñun ba ñu ñu commencé moom waaw juddoo ko soo xoolee ne bu waa moo ko mën moom moo ko mënee côté boobu mais Mbaye xam ngeen jigéen dafa am xel teg si jigéen pour mu ah, defal benn mission ba mu sotti dafa yomb dafa yomb jigéen moom moo mel noonu quoi waaw waaw. kon gars yi infidèle mi ngi noonu ah noonu xaar leen léegi mu ñëw ngeen koy siif bu baax soo ko siif nag ah mais tamit ngeen si jàngee nag ngeen si jàngee ngeen si jàng parce que série boo leen ko siif rek bàyyi noonu seen soo koy suivre da ngeen siy jànge bu baax a baax a baax waaw ndax affaire bi doon naa ko dund kon wax naa koo bàyyi ndaxte amul am mujj bu nice waa ma daal koy bàyyi waaw loolu moo tax ñu naan série série soo koy suivre faaw nga jëlee si sens waaw kon gars yi ciao bye bye